you jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo su ngeen gisee fi ñu toog nga xam ne tey ñoo ngi Fass Mbao seet si ki nga xamante ni mooy doomu Fass su ma nee doomu Fass xel yi dem ci Mamor tey ñoo ñëw ñu ne tey nag ñu ñëw seet ko bëgg waxtaan ak moom lu jëm ci làmb bëgg a ak moom ci actualité yi fi am bëgg waxtaan ak ci combat bi nga xamante ni moom la ku ne xam ne ne amoon na combat dafa woon bëree jour bi nga xamante ni mooy dimanche samedi li nga xamante ni nii moo tëj ñëpp téye dëkk bi téye àdduna muy coronavirus bi ñëw yàq làmb ji tey nag ñu bëggoon ñëw waxtaan ak moom ci carrière waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy làmb ji nga xamante moo la jëm ndax saison bi comme ni mu leen koy waxee moo ngi waajati ji xanaa ma bàyyi mu nuyoo ñu doxal Maama nuyu naa la. asalaamaaleykum waa Wasaare asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum monde entier ñu ngi lay fay doxal ba si kanam. tey ñu ñëwoon seet si la fi nga xamante ni mooy Fass Mbao ñoo fekk la ci mbedd bi nga toog di waxtaan. lan la dañuy gis mbëy des fois ñi dañuy lëlu des fois ñu fekk leen saal mais ñu fekk la ci mbedd mi lan la. waaw fii nga ma fekk ni sama secteur sama koñ waaw yaa ngi ma fekk fii si buntu salle musculation bi macha allah fitness buntu salon de coiffure xam nga sama mag ak moom moo bokkal ndey ak baay jéelaani yaa ngi ma fekk tamit fii ma toog place Cheikh Kouka la xam ma fii la ñuy toog di naan caayan fii la defee lépp waaw dafa tàng daal fii la toog nii xam suñu koñ. waaw ah, noonu la demee. c'est la première fois Mamo génn fi nga xamante ni mooy Wassare Lamb Mamo lan moo ko dugal ci làmb. waaw ah, lu ma dugal si làmb mooy xam rek bëgg-bëgg amour xam ak sob tamit xam nga. doon topp gars yi ñoom Ousou Bane ñoom Jam Ibou Fass Amadou Camara xam nga. Pape Gueye Amadou Camara waaw. fu mu nekk léegi. Amadou kamara moom waa xam naa daa voyagé woon quoi. ok eh, noonu la demee. ñooñu nga topp ñoo la dugal ci làmb sa premier combat naka la demee. waaw sama premier combat maa ngi ko bëree parcelle unité 10 sëñ Modou Niang moo ko tëggoon. maa ngi ko bëree foofu maa ngi Mor Cak Cak yàlla may ma si ndam ma bëree ko si ay secondes yi ndaw xam nga arbitre ma daan ko. combat bi métti woon. non non méttiwul. wala yàggul. non ma doon sax une minute. kon na ci yow de. non xam nga rek man sax damaa bëre pare ma ne bëre esaat mi nii la demee moom loolu mën a trop. Euh, par rapport ak bu ngeen daan dem ba pat contact yeeg yooyu nga ñëw làmb ji mu yomb personne balaa ngaa dem final affaire yooyu ak daj lu metti si biir mbapat bi te stade dafa am sécurisé quoi mbapat da nga naan bëre sax gars xam nga ñëw ñëw ñu la xoqatal ñii la ay paaka xam nga ne boo daanee xam nga ñu naa jaar fii xam nga mooy loolu daal mbapat daal mos na daal ci mbapat nga war a ñëw tegal la lu metti nga xam ne tey jii tey su ma bëree balaa ma fay jógee mën naa demee neen loolu mos na laa daal ci mbapat waaw dal na ma fu bari dal na mu buun bii rek dama mm-hmm. buun ma ñëw xam nga gars yi non non combat nommé la woon waaw maag Jibi la woon ah, Jibi Gueye bu metti nga ñëw gars yi tegal lu metti na tey tegal lu bëri doole barki yàlla ko ñam teewul ñëw bëre ma daan ko non mais la nga ñëw taxaw ñu ne tey moom boo fi daanee doo fi génn fii la jam lan nga njëkk a xalaat ak ñi nga àndal no boobaa damay boobu laay gën a mën a bëre nag ndax man maa opté nekk mbër xam affaire yi amul ragal daal ok li la si dugal génneewu si mbooloo lay topp sa ginnaaw xam te ay xale ngay àndal duñ fàtte loo def rek ëllëg dañ la koy nettali moo tax boo duggee si làmb wane jom laak fere njàmbaar mbëri moom kenn ragalu si wóor na yàlla. amul tapet ragal daal ndax fi ngay jaar moo metti làmb làmb esaat moo gën a yomb. moo gën a yomb ba waaw. a yomb ci mbër mu ndaw la gën a yomb. làmb esaat est-ce que nekkul ci mbër a yomb. bu nekkee moom dangaa jaar si mbapat moom boo bëree bëri esaat doo ànd ak pression doo am tension doo am dara. ndax maanaam da ngay mel ni kuy ñëw ku ku demoon répétition di ñëw di tari rek waaw dangay ñëw calcul la bëri stade bi yëpp calcul la li ngay wax ak li ngay def yëpp ci signature bi doo ko bëree boo ñëwee da ngay xam ni carrément tey bi su ndam la waaw bu la yàlla mayee defee na nga sandee ko yàlla dem ñibbi mais ñun moom chaque jour génne la ñuy gëm daal ba koroog lu am. fi mu toll nii ak fi nga toll nii fi surtout toll ñu xam ku ne xam maam bu waaj combat gàtt gàtt gàtt gàtt dina def mois nga jël avance. sarax yi génn war a dem fay sëriñ yi war a fay saal jox mbokk yi am di jàmm yi moment bi est du loolu moo gën a metti ci làmb am moo si boppam billaay walaay làmb am man de moom amaguma si dara moom wax dëgg yàlla su ma la waxee am naa si dara damay fen amuma si dara su may bëri suñu waa kër ñoo siy sonn ak waa Fass Mbaaw gi ak sama gars yi ñoom musaa xam nga ak ñoom Dora ñoom Mosulay ñoom Khourou Sow ñoom ñoo siy sonn mais ñun moom wur na yàlla amaguñ si dara moom dina daan daal ñu neñ félicitation mbër di xam nga boo daanoo ñu ne décourage gëm ko dina baax. di la xas ak la wax yéen waaw mais mais après yow yaay teg armée bi rek yow yaay teg xam nga de leer bi rek xam ni carrément yaa yaa am loo opté bëgg ko quoi daa ànd ak ay critique après gars yi lu ñu wax rek da ngay nangu mais après yow yaa xam fi ngay teg sa tànk xam ñi ngay àndal xam fi ngay toog waaw. ñaata combat nga def. bëri naa huit combat huit combat laa bëre am six victoire am si deux défaite benn bi par avertissement la. non défaite la bul ko bul ma quoi. Ah, par par avertissement la yow bi ngay ñëw ma bëri naa ba temps bi jeex tamit ñu yëkkati loxo kee rek mu daw accolade ma ma ne ko félicitation mais man xam naa làmb mu sama kanam man ñi ma war a daan du ñii nii may bëreel. loolu dafa leer. ñan nga war a daan limal ma palmarès soo noppi nga doog ñëw ci ñi nga xamante yow ñooñ nga war a daan nga nekk ci combat jugeeguloo ci naan ñi ma war a daan ñëwagul limal ma palmarès ba noppi. non damaa leer ne man jamono jooju entraînement bu jub sax xam nga noonu ma ko woon def te léegi gars yi teg lu metti ay sayar xam nga ay Moussa mi ay Mbay Karaate xam nga ay Ousou Bane ay Pape Gueye gars yi dañ may teg metti barki yàlla xam ay usine doole ay jam damaa leen li si moo gën a tar ko waa ñi ma war a dajeel waaw te damay màgg xale laa. jërëjëf ñi si kanam kay di nga ñëw ci ñoom mais dama bëgg nga limal ma palmarès ba noppi. waaw palmarès bi premier combat bi maa ngi ko bëree unité euh, parcelle unité 10 maa ngi Mor Cak Cak. Hmm. sëñ Modou Niang moo ko tëgg ma daan sama deuxième combat góor fit bu grand mbooloo la mu daan ma. Hmm. sama troisième combat ma am doomu nombo bu Fodé du subaa comprendre ma daan ko quatrième combat ma am Brésil bu Soumbédioune daan ko cinquième combat ma am booy Waar ñu match mu ñu jox ko victoire sixième combat ma am kii góor Kumba Gawlo daan ko arène national mooy jour bu muy ibbi. maa fa njëkk a bëri combat spécial. septième combat ma am lengs bu écrit Fallaye Balde daan ko huitième combat ma am Boy Zil bu écrit Fallaye Balde tamit daan ko. sa combat yaag Boy Zil coow lu bëri woon Boy Zil nekkoon ci alir nga ñëw Pikine gi yëpp ëmb ko andi ko nga ñëw combat boobu yomb trop nag comprendre kenn comprendre du ba léegi nga ñëw takk Boy Zil combat bi yomb ak fi ñu tegoon combat bi. no Boy Jules moom moo jàppoon dañuy bëri combat bu métti rek man man xam naa ne ba du ma bëri lu métti. Ah, ndax dama ko bàyyi woon ak wax ji yëpp man ma dem liggéey dem Gambie ceene foofu noonu di nuyu waa Gambie yëpp sama tante aji Birima ak France bu Gambia xam nga ak Mor Pono waaw France day incha allah yàlla na ko yàlla may ndam maa ngi koy nuyu waa Gambie yëpp di leen wax xam nga saison bi lañuy xaar mu tijji ñu ñëw préparé waat xam jàpp booy bi ñu am nii daan ko dem suñu yoon xool leneen ndax combat bi mu ngi bëgg a yàgg quoi tamit corona bi nag nañ jeex nag gaan saison tijji wóor na yàlla waaw instant yi tànn bi rek yëpp commencé waat na. mais bi nga bëree sa premier combat nga am ci ndam sa deuxième combat nga bëri ci am ci défaite ak premier combat bi nu yombee xaw a découragé tuuti wala nga dégg ay coow. deuxième combat bi ki ma doon bëreel mag rakam ñoo doon ànd suba ngoon gu dégg bëccëg comprendre nga. combat bi dama ko jë xamoon naa ko bu baax magu Babacar Manuel la. Babacar Manuel maa ngi koy nuyu moo ngi Maroc moo ngi gis Kara gaa yëpp ñoom yeba xam nga combat bi respecté wu ma ko woon quoi billaahi wallaahi si kaw foofu noonu maanaam dama ko ñàkkaloon fayda comme naa jox ma ko cër ah man jàpp naa ne bëre bu ma koy jàpp. muy ba nga premier combat mu yomb. mu yomb ma daan waaw ak affaire xale nii respecté woo ma ne kon affaire nii la yombee ah garaaw damay daanaat njëkk na dañ may daan si boobu laa yeewoo ba léegi nii jour boobu laa gëj a daanu ba léegi nii ñu jàpp ma daan ma ko sant yàlla bu wér a wér xam nga di ñaan yàlla xeeb dool yi ñëw ñu daan la mën a ni. làmb doxee boobu laa xam lan mooy làmb si laa màgg si làmb. di tey di déglu conseil bu ñu ma waxee bul dem fii du ma fa dem bu ñu ma waxee demal fee ma dem fa bu ñu ma waxee dóoral ma dóor bu ñu ma waxee songal ma song comprendre denc sama bëre. mooy loolu man gëm naa ne sax làmb ji nii xam nga li ma mën gëneegu ma ko am papa Mbaye Guèye xam nga ñu koy ñaanal mu tane. fu mu tëdd xama jugaat ba ñëwaat si ñun ndax soxla nañ ko trop di ko ñaanal jàmm ju bari saawaan baawaan barke Serigne Touba suñu amoon ñu ko mën a yóbboo Europe dinañ ko yóbbu ñuy tàllal laale loxo xam ku ko mën a jàppale rek mu jàppale ko instant bi moom kër Tafa Gueye Tafa Gueye moo ko jël en charge Tafa Gueye tamit ñuy kontaan si moom bu baax xam nga lu mu def rafet na trop waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm ju bari xama ak xéwal yàlla na ko yàlla fëgg boppam foofu mu tëdd moom Père Mbaye Guèye ndax ci làmb la bokk dafa na lu ne làmb te làmb delloo ko da ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ba mu jug foofu nga xamante ni fa la tëdd mais dama dégg léegi nga ne ñi ma war daan ci làmb te yaa ngi jëb yaa ngi jub combat nga ne ñi ma war daan ci làmb li ma war a daan nest loolu nga wax jëmaguma ci ñoom teg sama bët quoi fu mu bëgg a dem comprendre am na foo xam ne boo fa bëggee dem doo wax si kaw sax ñun di la dégg comprendre da ngay def nii rek yow fan nga teg sa bët. si kaw. ci kaw ñu ñoo fa nekk. roi des arènes bi. non yeggaguloo foofu. waaw man waaw fu ñi ma bëgg a daan yeggaguma fa. waaw déggoo ma la ñu ma bëgg a daan yeggaguma si ñoom. kon man am na fu ma bëgg dem mais am na foo xamante ni palier boo xamante ni fa nga teg sa bët. escalier la rek làmb xam nga da ngay daan di yegg daan wàcc. léegi dee ma kenn dégguñu. non non nañ yàlla baax na nañ fi yàlla bàyyi rek wasaare ngi nii. <laughs> lii nii day dugg fii ak si quatre-vingts ans day wasaarew xam nga yàlla nañu yàlla defal jàmm rek dinañ toogaat waxtaan xam nga Paul bu daaru Paul bu daaru waaw xam naa ko nii nii rek mais mosuma ko gis nii bët ak bët nga jël avance am waaw xam nga ne moo la sut moo moo la xam nga loolu waaw mais dëgg la loolu lépp garaaw wax nañ ma loolu lépp kii ma ànd ki ma toogal nii moo ma sut moo ma ëpp te chaque moom maa ngi moom bu ko Paul bu daa jàppee day doy waaw yow loolu nga yaakaar rek mooy yow booy occas Moussa ma ne booy Ocass ak booy jam ñaayo kii moo sut pël bu daaru ma ne bu ko pël bu daaru jàppee man moom ñooy préparé combat bi laa la wax wóor na yàlla man du ma calculer loolu ku sut pël bu daaru bëri naa moom daan ko def ñëw di lii combat di benn bennal yooyu pël bu daaru ko fa xaar ku sut bu daaru ëpp ko ma ne bëri naa moom daan ko ma ne sa yi ngay def noonu taxaw di lii comme ni nga def boo zil daw jàpp ko njoolu ko xam nga kal ko yooyu noonu yooyu doo ko def pôl de pôl si laa war a wanee sama bopp ñu xam man maay kan na gars yi ba léegi nii xam nga dañoo xaw a si pôle bu daaru laa war a exploiter man sama li ne si man ma génnee ko ndax arène nationale lañ jëm spécial combat soq gaamu gay lu nuyu Baba jaw bu baax di ko wax fi ñu tegoon suñu tànk ñu ngi foofu ba léegi mais gëj nañ la dégg nag nañuy déggante bu baax xam nga xam fan nga toll si ñun tamit làmb bi daf ñoo jaral ñu ngi koy préparé boobu ba léegi tegewuñ suñu tànk pôle bu daaru moom gaan dañuy ñëw rek xam nga xaaye ñor na. non boo fii fi mu toll ni kay xaayagul damaa bëgg nga xam ne làmb nga am. man loolu laa bëgg nga xam ko ni nga bëgg a yombalee combat bi nii yombewul noonu. billaahi walaahi taalaay du ma wax sax si lu jëm si làmb ji na làmb ñëwagul. di nga ci wax yow nga lekk avance Baba Diaw ah lekk avance poul bu daa taxaw fii naan poul bu daa moo kii ñoo tolloo ak di ko tëkkalee kii nga xamante ni lekkul. poul bu daaru man li leer na man li li dugg sama bopp bi li duggagum. waaw duggagul ndax amul mbéy ngay tigre de face. waa noo bokkul. waaw xam nga lu ma la amul bay ah am na ñoo xamante ni mën na mën moom ñoom ñooy. entraîneur laa la wax barke Serigne Bamba ñoo jànganoo bëre ki koy entraîné. ki koy entraîné noonu gaañ boobu noonu ñoo jànganoo. mais fii nit nit nit am na maître ba noppi raw maître loolu yëpp gis nañ ko fi. gaañ si kattanu yàlla ak mbaaxam pël daar bu ñu bëree dama koy daan bu ñu xeexee ma duma ko. dañ la ko dee. dama gëm sama bopp kenn deewu ma dara. ñeme ngaa taxaw xeex ak pël bu daar. du tegee sama tànk si kanam du ko laal te moom bu tegee tànkam ma jël ko buñ jaabantee làmb jeex tàkk. est-ce da ngay saaf nii bëgg mu ñëw xeex nga daw. nax ko man di dibiteri laa su may saaf foofu laay saafee. moo tax man la est saaf. non waaye làmb daa am saaf làmb ñëw dëggal sa bopp. nga dégg mbër mu wax ba ngaan kii bu ko jàppee da koy bu ñëwee bu waaj di xàcc mu daw jël. sa micro sax laa mos a wax lu ëpp nii. billaay walaay ma wax lu ëpp si làmb <laughs> <laughs> da ngaa war wax nag. no damay wax mais li ma bëgg a wax sax nekkul si ay làmb nii quoi. déedéet loolu dinañ ci ñëw. loolu moom dinañ ci ñëw. mais combat bi da ngeen ko waajoon ba ñu suba la ngeen jotoon jënd ay billets léegi nu ngeen def ak yooyu sa waay leen joxaat yeneen billets wala da ngeen ngeen waajaat comme ni ngeen combat bu bees. boo bëggee dégg dëgg. moo ngi mel ni nga ñu ne suba la tabaski nga jënd xar xaru 700000 xar bi dee wala mu fër wala mu rëcc xam nga da ngay wutiwaat beneen. làmb ji kon su ma déggee da ngeen a perte fi mu làmb ji boo bëggee dégg dëgg ñun ñëpp a perte na si gars yi jàpp rek xam nga ay xale lañ demaguñ fenn ñu yokk ñu doole rek ñu ñëw bare mais def ngeen li ngeen waroon def jënd ngeen tikki waaj ngeen ba noppi te combat bi yàqoowu ci yéen ma yaakaar ne comme que jënd jotoon ngeen jënd bi waroon ngeen mën a waxtaan ki nga xamante ni mooy promoteur bi bu ngeen jëndoon cent franc mu delloo leen fukk ak juróom wala fukki dërëm jotu leen ci waxtaan. non promoteur bi moom moom moo gën a perdre sax boo xoolee ndax xam nga ku fay tëggkat fay esaat xam nga waykat yeeg lépp nga def sa ba commencé togg say regroupement barki Serigne Touba Pape Kana ngi nii man fan yëpp moo géet laay waxtaanee. <laughs> billaay walaay waa koñ bi xam nañ loolu. war na Serigne Touba mbaag moo géet gaañ wala book jàpp si. war na alxuraan karim mais promoteur Baba Diaw moom dinañ waxtaan ndax jeune la te xam nga maa ngi gis muy taxal ay combat de soog comprendre nga dañuy waxtaan rek ñëw bëree ko ndax pour daar moom il faut ñu bëre. waaw di ngeen ndax li ñu si moom il faut ñu répété ko. moom tamit li mu na su ñun xam nga ñu ñëw rek fair play bëri si jàmm ak salaam après ñu amaat yeneen combat quoi mu dem ma dem. boo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax. sant ñu may jàppale ndax instant bi affaire dëgër na comprendre nga di leen xam wax tamit ñu gën a jàpp non moo géet dernière kàddu lu ma koy wax rek mooy moo géet Mamor laa tudd doomu fas laa comprendre nga di li ngay def rafet na si réew mi barke Serigne Touba Mbacke lu tax ma kontaan si yow mooy Alaaji Mbay xam rek dafa sonn fu nekk mu ngi fay taxaw xam nga nga soutenir ko jàppale ko gën ko jàppale barki Sëriñ Touba Mbacke Alaañ Mbay xam nga rek borom baax la ko quoi day neexal làmb. doom Pikine la la ba pare day ambiance te bu waxee mu neex bu feccee mu neex bu bëree mu neex xam bu paasee làmb ñu ñëpp ñoo far quoi waaw borom yoon la. waa di woo ñoom Pape Kane ñoom Doro xam nga Jelaani Xadaa use ak Assane Pape Gueye xam nga Moussa di woo Jaara borom xam nga Poroxaan maam jaara xam nga sama jigéen la di nuyu suñu waa kër tamit ñoom Amet Lo xam nga Kole Aminta Lo Maas Lo Njaga Asan Sooda Lo am xam ñëpp sama jarbaat di bëggee ñëpp waa Vmaas nag xam nga maa ngi koy ñaanal jàmm ndax dafa may jàppale waa day jékki-jékki woo ma téléphone xam nga am lu mu def sama papa Modou Khoule tamit moom may jàppale promoteur la ay terrain lay jaay moom ak doomam Ousseynou Khoule Mamour Khoule ak sama yaay fa jàlloo xam nga leen ñaanal jàmm ju bari saawaan baawaan waaw di wax xama nga suñ papa Mbaye Gueye yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko wér mbaaka cubb sama benn gaan bu ma doon àndal day takk jabar la 14 mook Ibrahima Touré xam nga ñuy woo ñëpp ñu ñëw xam nga si xew bi ñu yëngal foofu noonu comme que corona bi jeex na di ñaanal Macky Sall xam nga mu am jàmm quoi affaire am yi nii xam nga yàlla def si ndox bu sedd dëkk bi am jàmm xam Sénégal ñëpp am jàmm daal ndax Sénégal moom ñun ñëpp ñoo far kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg ñëpp yàlla na ñëpp waaw fii yàlla na am jàmm daal Sénégal xam ak yeneen réew yépp waaw di wax waa di wax Mosulay xam nga sama kóol bi dafa yàqu moo ngi nii Moussa sama kóol bi dafa toj. daa planqué barki Serigne Touba Mbacke mosulay moom war indil kóol ñoom ñoo lay xaar quoi. lii de dinaa ko xaar Anta Seck xaar Anta Seck la fi nekkee tey. ndaamul gàtt moom moom moom ceeb la bëgg moom. lekk rek lay def non lekk rek lay def. <laughs> ana yàpp bi nii xam nga bàyyi jëli targindaa xam nga ñoo ngi koy bégee lu bari. Aliou Thiam tamit sama benn gaan asalam la nekk comprendre nga moom dafa may jàppale si lu bari si ay yii xam nga saa damay sonn woo ko mu dimbali ma. Aliou Thiam maa ngi koy bëggee bu baax a baax di nuyu waa Seras ak waa Fora waa Fass Mbao bi ñu ma dëkk nii xam nga góor ak jigéen mag ndaw xam di nuyu sëñ Fallou Mara di nuyu El Hadj Mbub sama tëggkat sabar bi nag gëj na tëgg xam temps yi daf feebaroon sax xam nga dëgg neexul instant yi corona bi léegi mu jeex nuyu waa Maroc yëpp ma fi àñ gis kara bi ak ñoom Pape Kane suñu grand la ay oto lay dawal di ñëw moom tamit combat da siy jàpp. nuy Sidi Mbaye waa bis ba fee ñoom pël xam ku ma limul rek damaa juum ko waa maa ngi bëggee ñëpp di leen sant di leen gërëm waaw waa Wassare xam nga télé bu gën si télé yi mais lu ma wax moo gét na génn de moo gét moo gét day jàll <laughs> jàpp si waay barke Serigne Touba Mbacke duñ ci dagg da caméraman baa ngi nii aadama lu kaa dawul baaxul gis nga ni lañ koy defee ci wasaare làmb dañuy xool li nga xamante ni dañoo bokk ci làmb comme ni ma koy waxee rek xamuñ mbër képp koo xam te am na licence bokk ci làmb foo a nekk dañ la fa fekk jël sa tey ni ñu ko defee woon seet si Mamour mu wàcc combat ba si digg bi corona bi ñu pousse ko mais xam naa ne léegi leen na waaj rek ni ma koy waxee na waaj mbër mu ndaw moom du préparé day pare ba beneen yoon incha allah ci wasaare làmb jaajëf